mardi 4 mai 2021 mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers TV nuyu nañ leen amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee naa leen nii lay demee ci seen journal de ren lépp loo xam ne rek jóge na ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko waxtaanee waaye à chaque fois rek ma ciy ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar l'incontournable <laughs> ci loo nekk. maa ngi sant yàlla yaa ngi noos. waaw yow yaa noos bu baax maa ngi noos bu baax. xam naa cawarte bi nga yéegee ci kaw plateau bi te na ma. quel cawarte dafay gis cawarte. kon kon da yaa ma ko roof. ah yi waaw nuyu la ma sawar loo de na wax na ko fii ci commentaire yi yow la du kenn. Babacar nuyu la téléspectateur yi maa ngi nuyu suivre ñëpp ci Equivox si xam ne moo di revue bi daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 4 mai 2021 dañ ñëw kin ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk la mu ca xëy fësal maanaam grand contre petit wala boog xale yu ndaw ya ak mag ña mu mel ni fi mu nekk nii làmb ja loola moo fa commencé dafa xeeñ wala moo fa xew léegi Balla Gaye booy Boy yëg yëglikaay bi nee na ba ca des mooy Ama Baldé Modou Lo mel ni ki nag fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg dëgg moom Balla Gaye 2 la mu bëgg la mu wala la muy tànte mooy jël Boy Niang teg ko ci place boppam loolu mooy waxe ka nga xam ne mooy sunu lamb du sama ay wax Modou Lo itam la mu bëgg mooy diggante mag Ama Baldé la ca nekk ci ay compte mu réglé ko wan ko ne duma sa morom moo tax yëglikaay ba xëy tey daal ne soo bëggee dégg-dëgg daal ah grand contre petit ba commencé na fa nga xam ne ni moom moom ri fa nga xam ne moo di ca làmb ji xam ne ni moom loo ci mën a dégg bu ñu deful grand contre petit la ñu def méngoo na ba yegg ci lool muy waa Vox Arena yëglikaay bi sunu lamb moo xëy tey ñëw dikkal ci seen combat ya nga xam xam ne moom la ñu tëgg mu war a am le 9 juin yëglikaay bi ne na soo bëggee dégg dëgg Franc Tyson 2 Mama Lamine ba ci Garga 2 maanaam daal datu 9 juin bi moom yëglikaay bi da de tous les danses la ko tuddee bés la boo xam ne ni soo bëggee dégg dëgg moom buñ ca yeggee maanaam bu keroogee man ne làmb mën naa am ndax nag Vox Arena la ñu andi ci benn bés dafa doy ba yegg waar lool lool lool muy maanaam daal Mama Lamine Garga numéro 2 Franc Tyson 2 ak yeneen i xale yoo xam ne ñu nga ca bis ba sunu làmb moo xëy tey ñëw ci xalima ak Ibakan dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne tamit la mu andi daal maanaam dafa bëgg ñëpp gis ci seen bopp muy Xaadim Sàmb ma ngeen xam maanaam di ab communicateur traditionnel moom daal la mu andi daal ci làmb nee na mu bëgg daal la 7 août datam booba nga xam ne nii daal moom la tëgg ka nga xam ne moo de ñàkk jariñu ak kéwél mu bawal Xaadim Sàmb daal la mu gis nee na da koo bëgg a def fête nationale maanaam ñëpp bokk ci drapeau pour président Macky Sall nee na daal lii daal la fas yéene nag def daal maanaam bés la boo xam ne daal buñ ca yeggee le 7 août daa jàpp ne fête nationale la ko fas yéenee def yemu ca tamit wax na ci moom palmarèsam ko wax jëkk tëggal combat mu bëre loolu mooy nga xam ne ni moom moo di Xaadim Sàmb ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey moom sunu làmb moom mu ngi xëy di ñu xamal daal soo bëggee dégg-dëgg ngir nag ren bi maanaam ñu mën a bëre combat yépp ndax dat yu bëri te xat fi mu nekk nii la ñu nar mooy stadium Iba Mar Diop la ñu fas yéene nag ubbiwaat ko ngir gaa yi dellu fa ngir yenn journée yi ñu mën ko faa tëgg ngir nag làmb ji gaa yépp mën a bëre wala boog promoteur yi mën a tëgg seen ay date yeneen promoteur wala beneen promoteur yi ngi boo xam ne ni daal am na combat espoir boo xam ne xëy na ko taxawal muy Assane Ndiaye yëg li bi nan sor su mën na ca école ba rajoon daal la jël boole ko ak ka nga xam ne moo di Banu Fall nga xam ne ni moo nekk ca Caaroy booba combat nag le 13 juillet la nar a am yëg ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu moom sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne ni moom moo di sunu làmb xëy na tey dalal ka nga xam ne moo di Gabar Singh ca rubrique ba ñuy wax Leewtoo gabar nag moom bañ ka laajee mbërëm nee na menn mbër la am moom moo di ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro di daal la jàpp moom Gabar Singh ne mooy mbër préféré Gabar Singh moo wax loolu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb leneen loo xam ne mu ngi ci biir suñu lamb muy ab CRT boo xam ne daal maanaam daal ngir waajal événement bi nga xam ne nii mooy drapeau chef de l'État ba nga xam ne moo war a am ca Kaolack ci mois d'ama yëglikaay bi xëy na tey wannu biraaseen yemu ca keneen koo xam ne mu ngay waajal bésam muy Yacine Sarr yëglikaay bi nag doomi Amoura Sarr ja daal soo bëggee dégg-dëgg le 16 mai moom ca gaal gi mu ngi koy waajal deux millions cinq daal la fa teg ci ab xaalis yëglikaay bi moo xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne aw tiis la dal ci làmb ji muy ki nga xam ne nii moom moo fi nekkoon am mbër ñu doon ko wax njagasaar numéro un moom nag moo génn àddina bër ki démb ñu denc ko fa nga xam ne nii moo doon démb ca amoon na soixante-quatorze ans maanaam juróom-ñaar fukki at ak ñeent yëglikaay bi dikkaat na ci moom ci ay jaar-jaaram ak ña nga xam ne nii ñoom la lool jamono ci ay génération kasem bi gën a seer ba tey yëglikaay bi xamal nañu daal maanaam ci ñeent fukki junni la toll kon Père Ndiaga Sarr comme niñ ko doon wooyee mi nga xam ne moom moo ubboon école de Ndiaga Sarr wuyu na boromam yal na ko yàlla yërëm taxare ko aljana Ami Diouf nag tey xam naa daa jaaxle laa foog voilà bu nekkoon nag li nga xam ne moo di euh, revue des titres ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmb Babacar ci xëtam bu njëkk tey euh, lam fa titre rek moo di Balla Gaye 2 Boy Niang ak Modou Lo le vent des grands contre petits maanaam grand contre daal match bi noonu la nar a demee. grand contre petit match bi noonu la nar a demee. Mm. waaw c'est normal. Mm-hmm. parce que garab si kaw lay fekkante. dëgg la te làmb noonu la yàgg tëddee. Mm-hmm. vedette bu ndaw nee nañ vedette bu folli koy donte que nag dama naan ñoo bokk ay génération parce que sorante wuñu parce que boo xoolee bu dee Balla Gaye 2 la ak Modou Lo Balla 2005 la ñëw si lamb Modou ñëw 2006 <laughs> ñoom Ama ak i Boy Niang ñoom boo xoolee entre ay 2009 jàpp 2010 lañ ñëw mm-hmm. kon xam nga sorante wuñu maanaam ñoo bokk génération mais terewul ñee ñoo mag parce ñoo jëkk a bëre et puis ci li ñu gis tamit ñoo jiitu ci âge mhm. kon yaakaar naa ne lu mënta xew rek grand contre petit lañ ko mën a tuddee mhm. parce que ñoom dañoo liggéey tey ba war a mën a bëri ak ñii parce que tey defe naa ne ñoom ñaar rek du ñu ay xale si làmb ji am nañ seen mhm. yeneen i morom mais dèjà bu ñu amee tey méritu bëri ak Modou Lo ak Balla Gaye 2 ça veut que lu ñu def la ah loolu nag su amee làmb la mais dama naan ñi ñu ko seqal tamit nekk guñu ay mag yoo xam ne dañ naan na Balla Gaye wala Modou ay mag lañ yoo xam ne dañ naan gone bàyyi naa la ak yàlla déedéet loolu wanee guñ ko ci seen làmb mhm. wala guñ ko ci sport bi yegg guñ fa ci at mhm. yaa ngi dégg kon sa veut dire que ñoom ñëpp ay xale lañu mhm. donte que nag maase même at même kii mënta am magante am na ci jiitu am na ci ci carrière palmarès tamit euh, bokkuñu ko parce que bu dee Balla Gaye 2 la bi mu amee Boy Niang amagu ko donte Boy Niang liggéey na tey lu tax mu war a muy bëri ak Balla Gaye Ama Baldé palmarès bi mu am Ama euh, Modou Lo palmarès bi mu am Ama amagu ko donte liggéey na lu war a tax tey mu bëri ak moom mhm. mais nag kolo fa ka wax garab ci fa kaw lay fekkante te muy Boy Niang di Ama mhm. ku bañ ñu daan la mhm. bul bëree ak ñoom parce itam ay mbër waada lañu waaye ñi ñu ko seqal tamit li ma la xam sànq rek bàyyiwuñu kenn ak yàlla. Mhm. dëgg la am na solo bu ñu jógee foofu nag euh, Vox Arena label bu mag bi comme ni mu ko waxee rek à chaque fois combat yi nga xam ne tëgg nañ ko le 9 juin incha allah muy diggante Franc Tyson 2 Mama Lamine ak euh, ñeneen ñi ci des mu mel nii rek euh, yéen bi xëy na si ko vers un 9 juin de tous les dangers maanaam daal. mbëri danger daal. waa loolu moom defe naa ne bu ko waxee lu normal la parce que li tax mooy combat yi ci Vox Arena tëgg la 9 juin boobu. Mhm. ñu tombeek mercredi yaakaar naa ne képp kuy amateuru lamba te bëgg làmb mhm. doon nga ñaan yàlla combat yi am maanaam mbër yi mën a daje franc tey bu ko Tyson 2 nangoo taalal loxo jël ko. Mhm. bëri ak moom. Mhm. ça veut dire que moo lay wan ne kon foofu tamit lamb ju dangereux la. lamb du ko gën a dangereux parce que Tyson 2 dafa nekk mbër moo xam ne ba tey dangay dégg si ay nit souvent ñu naan la ñi ñi muy bëreel sax warta bëri ak ñoom. Mhm. classe su ñoom Sa Thiès la classe su ñoom euh, Boy Niang la classe su ñoom Ama Baldé la te effectivement noonu la demee. mais nag lamb lu ci nekk rek ak heure am ki muy bëreel tamit wala ki mu may loxo wala war a bëri ak moom muy Franc itam daa nekk mbër moo xam ne ci li affaire Franc bi tey mu ngi ci wane boppam boobu ba tey gisaguñ ci defetam mhm. muy mbër boo xam ne xale boo am wala boog bu waa parcelle am ci moom yaakaar la ñu nekk ñaar ñoo xam ne kon defe naa tey pour nga ne kii mooy daan kenn ki dina jafe te loolu dafa da dafa neex ci làmb Garga 2 Mama tamit kazalika naka noonu Garga 2 daa nekk boo xam ne mën a bëreem tey ci làmb mhm. amul ku xam làmb wala ku xam Garga 2 ku koy werante ndax Garga 2 mën naa bëre mooy géej gi am na ndox mhm. mën naa bëre am na technicité te itam mhm. mbër mu physique la macha allah Mama Lamine nekk xale boo xam ne itam mën a bëreem ak sañ-sañam moo ko indi tey fii mu nekk maama Lamine bu arbitre soufflé mhm. xamul li nga mën ak loo andi moom la mu am la lay teg yan la ko mhm. bëri si ak yow te gis nañ ko mu jëlee ci ay ndam yu ama am solo daan ay am ay victoire yoo xam ne mhm. kon defe naa daal euh, Vox Arena Ami Diouf moom mhm. loo ci mën a dégg le 9 juin mhm. yàlla nañ ko fekkete tal ko waaye waaye daal loo ci loolu la waaye mën a wax daal ah waa Vox Arena def ngeen affaire de gars yi def nañ waaye ndam def ngeen de bàyyi ngeen kenn ak yàlla de loolu la yàlla dogal de ah, incha allah rabbi yàlla dina ko def di nuyu Badou de passage oh, waaw du mën a ñàkk Badou faw ñu nuyu ko waaye faw ñu nuyu waale kilifa gu mag gi nga xam ne moom lu ji njaaka mooy njaak waaw yëngu la ko yëngale ko ëpp doole mhm. waaw noonu la fa demee mm, am na solo bu ñu jógee foofu nag ki nga xam ne moo di Khadim Samb moom moom mu ci journée sept aoûtam ba rek nee da ko bëgg a def daal loo xam ne fête nationale lay doon waaw c'est normal parce que Khadim Samb moom RTS. Xaadim Samb Sud FM. bu ñu Xaadim Samb RTS c'est national. kon defe naa bu tëggee làmb def ko fête national maanaam bés ba turoo day wuyu borom rek. c'est normal parce que moom noonu la bindoo ci réew mi. di koo xam ne itam sunu wayjur la ñun. di nekk kilifa goo xam ne kuy defaree la. ku rafetal ay kàddoom la. macha allah nga ne sax moo organisé woon premier combat. Yékini waaw waaw na moom moo ko njëkk a organisé làmb. Mhm. waaw loolu am na parce que naa ne moom. Mhm. làmb da cee yàgg. comme reporter ah, liggéey na ci ci côté bu ne tey mu nekkaat ci su ko neexoon dem toog wax naa ko keroog nee naa ko su la neexoon nga lal toog mhm. parce que liggéey nga ba retraité ci côté yëpp mhm. mais terewul nga jëlaat sa alal ñëwaat di organiser ay xare di leen jox xaalis ñuy bëri di gagner seen mhm. vie defe naa loolu mag mu koy def jar na ñaanal yàlla guddal fanam guddal ay cëram mhm. mu ñu koy nuyu di ko ziar et puis tamit suñu mbokk bawol bawol mhm. parce que ñoom ak moom ñoo bokk bawol mais di ko ñaanal ki nga xam ne moom mooy kéwél bu bawal ah yàlla na ci jëlee ndam et mu nekk fet nationale comme ni mu ko bëggee di ñaanal promoteur yépp tamit ku si nekk sa journée quoi nga ko am na solo buñ jógee foofu na nag euh, tijji bi nga xam ne dañ ko war a waat euh, stadium Iba Mar mu mel nii rek gis nañ ne mooy solution pour sauver li nga xam ne mooy combat yi. waaw bokk na ci parce que li tax mooy Iba Mar stadium bi rawatina. Mhm. daa nekk benn place boo xam ne ci làmb dafa. Euh, ànd ak histoire làmb mhm. parce que la fa am ci ay làmb bëri na te dafa neex a tëggee làmb tey Demba Diop da ndox ay moment te rewu kon

Pikine lamb ji di continuer su ko defee promoteurs yi li ñu tëgg ci ay journée parce que ren lamb yi daa bëri Ami Diouf bu ko defee promoteurs yi mën a tëgg seen ay journée kon loolu defe naa daal mhm. ñu ngi wax ministre Matar Ba ministre des sports ah loolu moom su ko defee itam dina gën a dimbali waa lamb di mhm. dina gën a dimbali promoteurs yi mhm. ndax tey xam nga ne Mama Lamine ak ñoom Garga deux nii donte bis boo ko tëgg nit ñi ñëw mais xamam nga daan na doon na doon na neex nga def ko dimanche mais waa Vox Arena dañoo mujj def ko mercredi waaw am na solo ah, ba bu ñu jógee foofu nag ki nga xam ne moo di George Bush ak euh, Badou Fall ñoom seen combat le 13 juillet la incha allah. waa Assane Ndiaye moo fa jaar borom Baol production. Mhm. maa ngi koy nuyu di ko ziar. <laughs> Assane borom Baol TV moom moo indi loolu xam naa ci combat ñoom général Malika la ko fas yéene dugal muy combat boo xam ne bu nara neex la. Mhm. ndax Badou Fall ñëw na fii bu yàggul bëgg combat lool ba di ma ko wax. Mhm. defe naa tey source bu tamit combat mu mujj def ci ndam la ci jëlee woon mooy Lac de Guiers seen kër bëree na ca nekk ci école de Badajon kii nekk Caaroy. ñu ñaari xale yoo xam ne daal kon Assane Ndiaye itam fa mu wokk macha allah xasen na pour le mm-hmm. treize juillet jooju. Mm-hmm. am na mm-hmm. solo bu ñu jógee foofu nag drapeau chef de l' état ak Kaolack ñi nga xam ne ñoo di waa CRD ñoom ñu ngi ca rek préparation pour réussir li nga xam ne moo di événement bi. waa CRD wala benn CRD la ñuy amal. un CRD. waaw un ah? moom la ñuy amal. pour waajal drapeau bi. waaw <laughs> ami koor gi métti na loo ci mën a dégg daal CRD ba ñu ngi koy def ngir réussir tout mm-hmm. bi. <laughs> yàlla na réussir drapeau chef de l'état moom la ñuy ñaan. Mm-hmm. parce que tamit nekk na loo xam ne. habitué na chaque année ñu di ko organiser ci région yi. Mm-hmm. mu nekk ay compétition yu neex a neex. biñ ci mujj a def région de Dakar ak jëloon. ak ñoom Ibrahima Mbaye ak mbër yi mu àndaloon daaw amu ko ndax coronavirus bi nag. an incha allah rabbi ñu fas ko yéene def ca Kaolack su bira seen mhm. yàlla nañ ko réussir daal mhm. am na solo ki nga xam ne nag moo di gabar gabar nan gabar sing gabar sing ok moom nee na daal mhm. dafa mel ni euh, Balla combat Balla Gaye 2 non Balla Gaye mooy lutteur préféré am waaw c'est normal Gabar Singh mbër la bokk école de lutte Papa Kan waaw fa la bokk dëkk Géejawaay Gabar Singh mbër la bien sûr mbër mu mën a bëre mu naqaree bëreel laay lay la laa boo seetaan mbër mu mës a dugg ci moom métti na ci yow mm. dafa naqaree affaire de Gabar gabar mi yëpp pëpp kaani la kenn du ko laal. Euh, tey nag ah li mu wax c'est normal ci rubrique Leewtoo. Mhm. nee na bala mooy lutteur préféré Balla Gaye 2. Mhm. parce loolu c'est normal ñoo dëkk te Balla Gaye de itam wax dëgg yàlla donte ñoom ñi ñëpp ay classe la ñoo bokk géej way maase waaye tamit nit ki du tere boo gisee li nen bi rek nen nen baa ngi nii defe naa ne tey choisir Balla Gaye ne mooy sama lutteur préféré ci jamono ji ci làmb hmm. defe naa ne nga def ko dëkk géej way <laughs> ah non yaakaaruma ne erreur la te itam euh, parce que ki mu choisir li tax mooy euh, fi ñuy waxee mooy mbër waada la mbër mu ah. wane boppam la ba dégg roi am na droit tànn ko. Mhm. yaakaar naa ne tey itam ñoo bokk Géejawaay. Mhm. voilà ki moo di terrain gaal gi la 16 mai allah ki nga xam ne moo di yaa Sainte Sarr. Euh, mise ba deux millions cinq cent dafa mel ni yaa Sainte Sarr waaw di doomu Ambroise Sarr entraîneur national moo fay tëgg mhm. le 16 mai incha allah gaal gi incha allah rabi xam naa loolu bu ñu jullee ba pare la deux millions cinq cent c'est normal ñu koy ñaanal yàlla mu réussir ko yaa sant du suñu frère du suñu waay moom tamit vraiment di ko ñaanal bisam boobu daal mhm. yàlla ni si jëli ndam rek parce que tamit yaakaar naa ne moom itam mu ngi yokk parce que papaam nekkoon na mbër di bëre ba bàyyi bëre yore ay mbër di leen tàggat yore équipe nationale mhm. moom mii di doomam tamit mu ñëw te jël ci xaalisu boppam mhm. di organiser ay làmb defe naa loolu moo lay yoon ne rek ami kon macha allah daal soo tijee ak def ci la mhm. euh, li nag tiis bu naxar la euh, naxar laa bëgg a wax sax nag nga xam ne moo di euh, Ndiaga Sarr moom itam daal dina faatu rek à l'âge de 74 ans denc nañ ko fa ca Pikine ne ngeen di démb. waaw yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana mu nekkoon ancien lutteur. Mhm. ci jamono ñoom. Alioune Seye numéro un. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm. Mm, ancien lutteur la waaw ñoom Balla gaynduur Ndour. Mhm. ñun ñëpp ay génération la woon ak ñi ak ñooñ daal. Mhm. xam nga ñooñ la nekkaloon ay génération nekku nekk di ñu ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana bi mu bàyyee bëri tamit terewul mu ngi doon encadré ay mbër ba ubbi woon école de Ndiaga yaa ngi dégg daan fa encadré ay mbër xam nga. mbër yu ay xam nga ay ñoom B52 bëri na ay mbër yoo xam moo leen encadré ba def leen tey ay mbër. kon defe naa non B52 bi bu B52 bi Guédiawaye la ne. bokkul ak bombardier. d'accord <laughs> man euh, du moom bii beneen bu ndaw bi laa d'accord yaa ngi dégg bëri na bu yàggul sax. kon di ko ñaanal yàlla rek yàlla xare ko aljana moom per Ndiaga Sarr. Mm-hmm. vraiment yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. njaboot gi mu fi bàyyi tamit yàlla si yàlla def barke barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que lii moom mooy àddina rek. Mm-hmm. xam nga kul nafsin saay xatin mawtin la waxe sunu borom la du jaas mm-hmm. yàlla na am njéggali sunu borom bi rek ci barke weeru koor bi rawatina waa géejawaay waa tàggatoo bi xanaa sant yàlla rek julli ci ki gën ci mbindeef yi muy sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp jàmm di la ko ñaanal yow di ñaanal ñuy suivre tamit xam nga parce que ñoom tamit macha allah commentaire kat yi mënuñu leen fay ñu ngi leen di ñaanal waaye am na koo xam ne tamit dama koy beral ñaan rek mm-hmm. mooy borom marché asalem mm-hmm. Amar Tawa mm-hmm. borom garniture yu baax yi ah kenn du moom macha allah daal yàlla na sa jàmm yàgg ami am na loo xam ne ku la koy defal nga di ko wax te dégg naa si Abdoulaye Mbacke doon wax ni géwél amul mais ku la defal lu baax nga wax Omar Tawa daf may jàppale ci zaahir ci baatin di ma jàppale ci biir ak ci biti mhm. kon yàlla na ko yàlla dimbali mhm. dooleel ko te loolu li ko indi kenn la mooy Saliou Khoule mhm. Musique FM ndax moom moo tax ma xam ko kon muy Saliou Khoule maa ngi koy bëgg di ko ziar di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk ñoom Omar Tawa Amdi ak ki nga xam ne moom mooy musaa Dia musaa seen musaa Dia depuis Saint-Louis moom tamit maa ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm bu baax a baax ñoom Abou Sané gaa yooyu yëpp leen di béggee di ñaan daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm am na di nuyu sama maire commune mhm. maître Pape Sène mhm. et puis tam di nuyu suma xarit docteur Macoumba Diouf mhm. la maire de Latmingué sa femme Louise madame Diouf borom le Senghor ah du man a ñàkk kuy xalam di ca jaayu ah, barke ba yaay borom faw muy nuyoo parce que li tax mooy ku la safooti nga faale ko wala fa ko wax du mën a ñàkk gomis ah, yal na la jàmm sonal yooyu ah, itam yal nañ ko bokk waay <laughs> am na solo voilà mbokk téléspectateurs yi yéen itam amuñ seen fay di leen jaajëfal rek di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf